xam ngeen ne parti socialiste mi ngi suñu deret ñun ñii moom lañ bëgg moom lañ gëm parti bi si lañu mos a nekk ci nag ñu discipliné waaye aussi dañuy respecté ay règles dañuy respecté ay textes defe naa ne maître Bamba fii di juriste dinañ ci gën a mën wax mais surtout li ma bëgg a insister mooy politique boo koy def nekk ci parti bu fekkee ne yow élection bu jot doo dem vous faites ce couleur verte, quel est que vous avez Vous faites que vous avez présenté candidat à la présidence de la République. Vous avez une ambition sur ce bord. renouveler pour une Parce que si me mon discours, c'est mon message. Le Parti Socialiste a fait 75 ans. Il 75 ans. Pour commencer à avoir des il y a des choses. Vous a commencé à avoir des si amul diabète yaa hypertension donc que nga docteur vous la dafa bâtiment vous dafa te vous war ko vous que vous nga jël vous fondation yi ko ay architecte yu ay vous yu vous ko am ay ambition donc comme respecter wuñu procédure yi te ko dama ci insister l'indiscipline c'est lorsque on respecte on prend une décision sur la base des textes